Monsieur le gouverneur, nous vous remercions de votre présence et de l'appui. Parce que je pense que l'orientation que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, mooy service sous état yi ti montinek, ci déplacé dans les différentes collectivités nous avons ak ni nga ni exécutif local bi avons nga ni administration de déconcentré bi ba nga xamante ni ñoom ña fa nekk ñoo ñuy mën a gën a xam fa ñu war a teg suñu tànk ak fañ ko wërta teg ndax li gouverneur xam ci région bi ci ni muy tëddee ci entreprise yi fi nekk ci contexte politique bi économique bi ak social bi ñun ñi nga xamante ni ñu ngi au niveau central duñ ko mën a xam donc ñoom ñoom ñooy sunu ay premier conseiller bu ñuy ñëw ci benn localité mais nous remarquons aussi que nous avons un professionnalisme ak liggéey bu mucc ayib je pense qu'à chaque fois que nous déplaçons, nous ñun déjà au niveau des agences d'exécution mais aussi au niveau de plus élevé le président de la république ou le ministre qui ku ci déplacé nous gis le gouverneur nous ngi félicité. à travers vous toute l'administration territoriale pour le professionnalisme mais aussi pour le dévouement à la cause de la république bu ñu jógee ñu ngi remercier les chambres consulaires muy chambre de commerce et ak chambre de métier président wax na ce sont nos partenaires naturels Dina ñëwaat ci convention bi madame Sankaré euh, parce que nos conseil de surveillance bu ACPEX je pense que sur les 9 membres il y a que 4 qui sont de l'administration je pense 4 ou 3 muy ministère des finances ministère du commerce tutelle ak représentant présidence de la république muy le président du conseil de surveillance ak contrôle financier bi nga c'est euh, à titre de conseil conseil mais c'est du secteur privé il y a un représentant de l'union nationale des chambres de commerce aujourd'hui qui l'en fait représenter moi, président chambre de commerce bu Saint-Louis muy euh, Soura am nañ membre bo xamanteni moy représentant union nationale des chambres de métiers je pense qu'il leen fay togal ci conseil bi fimu mu toll nii mooy Ablaye Dieye Ablaye Ablaye Ablaye euh, Ablaye Ablaye Ablaye c'est le président de la chambre de métier de Ablaye Djé, non voilà chambre de métier de de Hmm non non non c'est pas un stade. non non non Abdoulaye Saint-Louis. Saint-Louis. Issa Dieye moo l'union nationale des chambres. Issa moo jiite l'union nationale. parce que day doon day doon moment y ñu toll dañuy changer am ku dugg am ku génn. je pense que c'est le président Bob qui était membre du conseil de surveillance au nom de l'union nationale président Bob qui est le président de la chambre de commerce de Fatigue. tey président Souran moom moo ko remplacé donc noonu tout le contrôle mu am représentant CNP am représentant MEDES am représentant CNES loolu pour lu muy wane li muy nous mooy ñun entreprise privée qui ñoo tax c'est très important nous ñi nga xamante chambre de métier ou une chambre de commerce nous sommes un partenaire naturel bu chambre de commerce ñoo le même ministère et nous avons une convention avec l'union nationale des chambres de commerce bu nga que présence président Serigne Boub de ko am nañ convention mais aussi terewul ñu am ay convention ak yeneen chambre de commerce ci convention yooyu la ñu sukkandiku woon ba bu ñuy tijji suñu bureau régionaux yi yi ñu jot a tijji yëpp ci chambre de commerce yi lañ ko logé muy bureau régional bu nga xam te euh, ngi Saint-Louis ñu tijji woon ko chambre de commerce Saint-Louis boobu président Dieye moo fa nekkoon muy bureau bi nga xamanteni mom la lañ won chambre de commerce bu bu bu bu Matam président Ndiaye mo fa moo fa nekkon Ndiaté docteur Ndiaté docteur Ndiaté effectivement mo fa nekkon muy bureau bi ñu tijji won chambre de commerce bu Kaolack euh, je pense que bobu Mor Mati mo fa nekkon bureau de liaison bi nga xamanteni am nañ ko Ziguinchor muy fonctionner durant les périodes de campagne anacarde ak Mang je pense que Bobo aussi ñu avec le président Eyamba la chambre de commerce bu Ziguinchor donc pour dire madame Sangaré que Nos partenaire naturel dans les différentes régions moom mooy chambre de commerce. et nous nañ une bi nga xam te am nañ ko utilité bi nga xam am nañ ko te yemu ci je pense que c'est un centre de démonstration bi aussi ñu ko au niveau des chambres de commerce fu ñu ci mënti dem donte am nañ service régional du commerce. Nous avons ni moom représenter le ministère dans toutes les régions mais chambre de commerce est un partenaire naturel et Inch'Allah, la convention boobu ñu wax soobee je pense que l'assistante juridique est là dinañ jël convention bi convention, ci contextualiser ko et Inch'Allah, dans les meilleurs délais Nous soobee yàlla dinañ xool parce que aussi dinaa ci revenir ça ci Thiès fait partie aujourd'hui des poumons économiques du Sénégal la région de Thiès parce que aéroport bi gëna Sénégal fi la nekk aéroport bi wala un hub aérien té mu un ensemble de services autour de ce hub aérien bu nga dana dana dana embarquer tout ce qui est économie mais aussi Thiès est une région très agricole bu ñu les produits yi ñu gis autour de la table ñu xam Thiès est une région très agricole mais une région minière aussi donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui kon Thiès dafa aujourd'hui plateforme économique bu nga je pense que c'est très important que nous gëna renforcer les structures bi ñu ni aujourd'hui fi jamono da fay laaj doxalin bu da qui laaj façon gis-ginin bu bess ñu ne nañu wut ay pexé pour que suna entreprise yi mëna a ak jamono ci lolu ñu ko 2017 nous avons commencé li ñuy def ni di plateforme de commerce électronique 2017 lañ ko commencé ñu lancé projet pilote bi mais yemoon ci ñaar fukki entreprise yo xam dañ di ndax dem wala muntu la dem 2017 bobu Covid des won dé bobu Covid des 2017 déjà ñun xalaat nañ ni fi jamono jëm des lo dootu pour jaay mais da nga fait tok fa ngay fait sa unité défar fa li fay défar jaay ko des do wu donc fay réduire say coûts de production parce que bo fait transport fay augmenter ci coût de production yi 2017 nous xalaat ko am ci ay partenaires dañu ci liggéeyal 2020 jot 19 2019 ñu tëgg projet ak waa GIZ 2019 bu ñu un projet ak waa GIZ ñu waroon a travailler ci ay consortia pour dem fekk entreprise fañ parce que le marché mondial dafa nekk marché boo xam te marché bu parce que souvent dafay nekk marché de volume ki nga xamante ni mu ngi nekk di defar transformation de jus wala ki nekk canaba di defar ndaamaraas wala ki nekk ngaay di defar dàll am na commande yoo xam te ne bu ko amee moom doog mu bëgg ko def du sotti te ci marché mondial boo amee commande soo ko mënta assurer correctement mën naa am doo amaat beneen commande comme entreprise yi dañu ndaw amuñu doole ñu ne dañu def benn projet boo xam te ne pour lëkkale seen doole la créer ay consortia d'entreprise te dina bokk ci jeexitali projet bi dinaa ñëwaat créer ay consortia d'entreprise pour que bu ñu amee commande dans n'importe quel marché ñom ñu mën ko assurer bi ñu tëggee loolu ak GIZ ba ñu commencer di ci liggéey ba warona def turne pour gis entreprise yi ñi def ay ay ay ay consortia mbas mi dugg si bi mbass mi dugg nak nag ñu mais bi ñu ñu ne du yem comme mbass mi dugg na nañu te xamuñu nyu la fi joggé nañu jéem xalaat nu ñu mën transformer projet boobu ñu GIZ pour yóbbu ko ci benen niveau wala ci benen compréhension ñu transformer projet bi pour mu nek projet pour xam dañuy accompagner l'accès au marché à travers les nouveaux instruments de commercialisation donc lool mo indi ñu liggéey ak GIZ ci projet de plateforme de commerce électronique bi nga xam mis mettre en place ci discussion yi ñu avec ak GIZ dañu waxone ni je pense que même suivi évaluation bi GIZ waxone nañ ne li ngeen di def ndax du méngoog li nga xamante ni ministère bi jot na ko def muy projet i koom-koom bi nga xamante ni xëy na am nañu ko dégg te ministère bi tënk na ko teg na ko en place ñu ne leen déedéet projet i koom-koom boobu dimension moo nekk au niveau national maanaam ki nga xamante ni mu ngi Ziguinchor di jaay diwtiir wala ki nga xamante ni mu ngi dem marché Diaobé di fa jënd keccax wala yooyu su fekkee daf koo bëgg a jaay ku nekk Saint-Louis wala mu bëgg koo jaay ku nekk Matam bu dugalee ci plateforme boobu ki nekk dina ko mën a jënd dina ko mën gis jënd ko ñu ut ben ben ben ben ben logisticien bu nek ci ginaaw bu nga xamanteni dina mën def livraison yi mais bobu dimension nationale la amone maintenant ñun projet bi dimension bi mu moy dimension internationale donc fofu lañu ñu entreprise yi parce que ñun nak ak lu mënti xew suñu métier moy fexé ba ñi nga xamanteni am nañ lu ñu mën jaay bitim réew ñu yobul la ñu jaay ko ñun dañu nekk ci benn benn benn benn ensemble boo xamante ni benn chaîne boo xamante ni ci chaîne bi di nga ci gis APIX di nga ci gis de commerce di nga ci gis ADPME di nga ci gis bureau de mise à niveau di nga ci gis FONGIP di nga ci gis FONSIS mais ñun ñoo nekk au bout parce que ñun bu ñoo ñëpp liggéeyee li ñu liggéey ñun la ñuy jël xool la ci gën a baax ñu yóbbu ko bitim réew kon donc ñun loolu moo taxoon projet bi am dimension boo xamante ni internationale la mais ci philosophie projet bi dañu wax ni ñaari aspect lay doon parce que fi jamono toll liggéeyu ndaw ñi jafena na jafena et c'est une problématique mondiale Si nous ko jëlul en charge dinañ am jafé jafé tôt ou tard parce que boom bi nga xamanteni mu ngi ñëw sur le marché de l'emploi chaque année ñu né ay 000 jeunes ñu ngi ñëw ci marché de l'emploi il faut ñu créer ay xam-xam yu bees yo xamanteni dana mëna tax ñooñu ñu absorber ñu ne état lu mu yaatu yaatu yaatu création d'emploi c'est le secteur privé qui le fait entreprises yi créer emploi état dafay mettre les conditions pour que les entreprises s'épanouissent pour que les entreprises aient des garanties mais l'état création d'emploi doit dafay am limite comme entreprise yi créent créer emploi il faut ñu jox nous ay pour que xam te ne nañ mën a ñoŋal seen liggéey loolu ñu renforcer capacité wu entreprise Bon ba vocation du commerce entreprise ñooy commercer mais aspect suuf si personnel personnellement mënul fu entreprise bi nek mu fekk la fa jël li ngay def fotol la ko defal la euh, spécification technique yépp dugalal la ko gérer la sa page Facebook moo tax ñu ne deuxième dimension projet bi mooy ñu xool ay ndaw yoo xamante ni am nañu benn prérequis bi ñu former leen ci métier yu bees yi ñuy wax digitalisation bu ko defee ñooñu deuxième phase du projet bi bu li jeexee ñu ngi yaakaar ne waaye GIZ nañ ko ne ci accompagnement bi dañ leen di jox ay kit kit de digitalisation muy ben appareil ak ben studio mobile nga xamanteni ñom ñoy ñooy liggéey directement ak entreprise yi ko xamanteni def nga sa produit ba mu ñom parce que li ñi def ni dañu bëgg kenn ku nekk bo delloo fa nga nekk ndaw yoy ñuy tagat ñom ñoy nekk relais ñom ñoy ñooy ñëw di liggéey ak yeen pour assurer convention yi xol ni ngeen di liggéey ak ndaw ñi dans un premier temps nan lañ leen une accompagner ba entreprise solide ak ndaw yi am expérience pour pare ñu bayil leen nak ñom ñu nek ay freelance di mën a liggéeyal seen donc lolu moy philosophie projet bi dans ces deux dimensions dans sa dimension capacitation et renforcement des connaissances yu entreprise mais aussi dans sa dimension capacitation et création de nouvelles compétences pour les jeunes donc lolu je pense que biñ nous ko lancé ba euh, je pense que biñu ñu Kaolack euh, bi ko lancé euh, je pense que université Assane le chef de département m'a envoyé un mail pour ne ma ñoom ndaw ñi tàggat ci wàllu technologie de la communication dafa dañu bëggoon bu de demee Ziguinchor ñoom ñu indi leen ñu bokk ci formation bi. université Saint-Louis aussi pareil Nous tamit wane nañu de bëgg-bëggu ñoom ñu dugal ci projet bi comme ñu nek en part ñu ngi réfléchir en interne nan lañu mëna mën en partenariat ak ñom kon lolu mom moy philosophie projet bi et leneen li ci aussi moi, bu ñu salle bi gis nañ euh, la dimension genre est très importante dans la transformation et dans l'économie sociale et l'économie réelle parce que ce ñuy mënti wax Si si nous les grandes entreprises mu sont dans les services wala mu sont dans les mines wala mu sont dans les exploitations nous aussi une capacité de recrutement des fois de limité wu mais aussi ce ñuy soxla le spécifique le pointu de sorte que li nga xamanteni bëgg nañ ko ñu recruter ko au niveau des jeunes wala créer ci ndaw xeyu ndaw ñi ñoom aussi dañ ci am limite mais li ñu gis mooy l' économie réelle ñi nga xamanteni ni ñoom ñooy yor l' économie nationale ñoom ñoo mën a créer de nouveaux métiers ñoom ñoo mën a créer des postes de revenu pour les jeunes ci lañ mën a am expérience pour mën a parce que tey boo demee ci entreprise bu mag liñ lay njëkk a laaj mooy ban expérience nga am soo amul expérience ñu jël sa dossier teg fële. keneen ki am expérience ñu jël dossier ban école nga jàngee su fekkee da nga say da nga doog nekk doomu baykat comme man jàngee ci école yi ñafe ba am diplôme ci jógee école yu nekk Canada wala États-Unis moo lay ëpp chance li leen di may chance mooy niveau primaire bi nga xam te dina ci liggéey ba am une expérience parce que expérience moom doo école soo xasee am expérience am connaissance am capacité n'importe quelle entreprise mën na la jël donte euh, sa diplôme soriwul gis nañ système américain bi da ngay gis koo xam dafa 10 ans 15 ans doog a dem def defi MBA pour mën matérialiser xam-xamam bi nga xam te ne liggéey na ko kon ñun ci loolu la ñuy liggéey ci économie bi nga ni économie bu terre à terre bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci unité yi di transformer produit yi nga xam am nañ ko fort heureusement monsieur le gouverneur le Sénégal a une très forte capacité de transformation de ses produits maintenant il faut mettre les moyens et les instruments pour accompagner cette transformation exemple jox surtout particulièrement mi quand on voit dans la région de de la Casamance naturelle aujourd'hui nous avons une exportation en valeur en valeur relative de chiffre d'affaires autour de 40 milliards 40 milliards si on fait les chiffres d'affaires cumulés de 2017, l'année où nous avons arrêté d'interdiction de l'exportation par la route, à aujourd'hui, on est dans une moyenne de 50 milliards de chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires-là, c'est exclusivement sur le brut. L'exportation de noix brutes en Inde, au Vietnam. Alors, si nous défendons, transformer 10% de l'anacar, 10% de la production du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui est à 60 000 tonnes de production une un chiffre d'affaires en exportation de 50 milliards si on avait fait 10% de transformation bonne valeur ajoutée l'air. L'indice 60 milliards jusqu'à aujourd'hui on a des difficultés à mesurer l'impact au niveau des régions de production parce que tout simplement exportation c'est un barnum, ça va impacter sur la balance commerciale mais l'impact réel sur les populations il des ba euh, euh, mais pour vous, capacité yi am nañ ko xam-xam bi am nañ ko ñun ñu ngi jéem a góorgóorlu pour que lépp lu ñu def ñu mën ko wane bitim réew. parce que fi jamono toll tey bi ñuy créer imaginer plateforme 2017 boobu Covid amul woon Covid bi ñëw na tey fépp foo manti dem même bu Covid bi jeexee terewul restriction yi day continuer di am am visa dana jafe tey su ma bëggee yóbbu euh, ay femmes transformatrices yu dëkk. Ngeexoox wala yu dëkk Touba Toul wala yu dëkk Njeyeen Sirax déjà tracasserie yi ngay am pour am visa billet d'avion bi nga wara a jënd logistique bi wara nek sur place nga war fa nek ak changement de climat bi yoy yëpp ay coûts yo xamanteni xamante ni dafa ñëw grévé wu ci sey coût de production mais su fekkee am nañ benn plateforme bu nga xamanteni dana mëna réduire coût yëpp juste parce que tu fais un clic tu as accès sur un produit et ñun liñ ci indi comme xam-xam moy produit man mënti cliquer bu jus de mangue wala jus de dakar wala dal li ñi défaré ngaay da ngay gis spécification technique de sorte que ki nek allemagne bu cliquer ci produit dina gis spécification technique yi dina xam ne lii ay jigéen la ko liggéey yoo xam te ñu ngi Thiès Nord ñu ngi liggéey li am bio la wala léeg-léeg li bu ko défé client bi fay yakamti pour jënd ko kon loolu mo mo nek sunu sunu sunu objectif beneen dimension bu moy fay bi parce que ñu bari ñu nga xamanteni ni ci njaayum Facebook wala njaayum euh, internet de façon générale moy fay bi moy le paiement électronique parce que souvent nit ci duñu euh, surtout en Afrique duñu bëgg jël sen carte dugal ko ci fo xamanteni woru len ak yoy mais ñun dañuy def ci système ak suñu technicien yi système bo xamanteni il va y avoir un paiement sécurisé parce que ci plateforme projet pilote bi difficulté bobu amon nañ ko parce que PayPal lañ doon projet pilote bi mais difficulté de sorte que entreprise yu bari plaindre nañ ci mais loolu ñu ngi koy essayer monsieur le gouverneur ñu ngi delluwaat di leen sant di leen gërëm di sunu sunu yi sunu tante yi sunu soxna yi sunu yaay parce que la dimension genre est très importante dans ce que nous faisons parce que ñoom ñoo animation économique bi ba pare jigéen ñom loo leen jox ñu yobbu ko ci kër ya waaye góor ñu loo leen jox ñu yobbu ko faneen kon je pense que faire une mention spéciale pour les femmes c'est faire. programme Essie euh, Jobs de la coopération technique allemande la GIZ euh, tey dañu ñëwoon fii accompagner ACPEX ci programme bu ñu bëgg mettre en place c'est-à-dire mettre en place benn plateforme boo xam ne ci nii euh, entreprise yi petite et moyenne entreprise dinañ ci jaruñu pour fësal seen njaay à l'international donc euh, nous yaakaar nañ ñu que regrouper ensemble ba nga xam ne si ñu ay accomplir la mission la demande internationale en termes de qualité surtout et en termes de quantité également et nous suñu objectif principal mooy euh, jox ndaw yi il y a ni ak projet bii dinañ recruter des jeunes nous xam si accompagner entreprise pour nous mener à et aussi euh, euh, am taxawaay bu baax ci plateforme mettre en place et après formation il y a aussi que entreprise yi dinañ ci train de bu faire pour euh, vendre à l'international et être reconnu partout. Nous avons présider un atelier de formation pour deux jours pour ces opératrices économiques. ñu xam ne dañu war a tàggat pour ñu mën a euh, soxli euh, soppali soppali njaay parce que léegi maintenant il euh, njaay mu bees dafa am yëpp gisan ko Sénégal mooy njaay mi jaay à travers les portails à travers portable yi yooyu mais nag il faut que ñu tàggat yi ñoom it jigéen ñi pour que ñu xam parce que loo gis rek am na lu ci baax am na lu ci bon mais nag foog ñu tàggat leen wan leen li wan leen lu ci baax lan la wan li ci bon lan la pour ku ñu mën a éviter wala aussi naka la mën a def ba lënkaloo parce que aussi ñëpp xam nañ ko ne euh, suñu entreprise yi sénégalaises yi yu ndaw ñi am na ay capacité yoo xam ne boo leen ko laajee duñ ko mën il faut ñu lënkaloo nga nga woo kii woo kii parce que loolu sax dañ ko di toujours di ñëw ci benn usine ne dama bëgg 100 moom mu ne fukk la am woo ay nawleem bañ defar ba mat 100 euh, je crois que aussi loolu aussi dana ci mën a permettre que ñu mën a écouler seen produit yi Nous avons une force du marché international plus de visibilité pour nos produits mais aussi vraiment permettre lu plus absolument am relever euh, les exportations euh, du Sénégal surtout relever exportations du Sénégal avec Moïlan, lan permettre que la balance commerciale soit excédentaire Donc vraiment aussi di remercier c'est une coopération que nous avons toujours appelée, ngi remercier aussi Aspects, ci la yi de la di

mais dañ soxalee jigéen ñi ñoom ñu yore entreprise de transformation yi jàppale leen parce que lu ñuy liggéey aussi ñu mën ci gis seen bopp gis seen bopp mooy ren moo ñu mën ko jaay.